wa faddalahu ala al anbiyaai wal zawi al aliya fa tabaarakallahu mbokk yi ginnaaw bañ sante yàlla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar macha allahu taala di ñaan yàlla yal defal leen jàmm te defal ñu ko ci daraje nabil mustafa sallallahu alayhi wa sallam di nuyu fa tabaarakallahu kilifa diine yi nekk ci biir réew mi macha allah di leen ñaanal yàlla yal na yàlla guddal seeni fan yokk seeni wér ci darajey nabil Moustapha sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi nuyu sunu woyjur sunu sëriñ sëriñ Babacar Sy Mansour al Khalifa di ko ñaanal yàlla yal na yàlla guddal fanam yal na yàlla yokk wéram yal na yàlla dëgëral taxawaayam ci darajey nabil Moustapha sallallahu alayhi wa sallam noonu la ñuy def tabaarakallaahu dem ba Louga nuyu sunu woyjur sunu sëriñ. Ceerno Bachir Taal fa tabarakallahu ma sha allahu taala di ko ñaanal yàlla yal yàlla guddal fanam yokk wéram yàggal taxawaayam ci daraje sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba Tuuba fekki sunu sëriñ sunu wayjur sëriñ Muntaqa Mbàkke fa tabarakallahu di ko ñaanal yàlla yal yàlla guddal fanam yokk wéram dëgëral taxawaayam ma sha allahu taala noonu la def dem ba Kawlax dem ba Laayeen tabarakallahu dem Cenaba dem ba Nimzaat macha allahu taala mboolem kilifa diine yi nekk ci biir réew mii di Sénégal yal na yàlla sàmm leen yal na yàlla aar leen ci daraje nabi Moustapha sallallahu alayhi wa sallam waaye du nuy baax Thierno Hamidou Bane di ko ziyaar macha allahu taala di ñaa ko ñaanal yàlla yal yàlla yokk tarangam yokk xéewalam fa tabaarakallahu nuyu sunu directrice soxna Yuma Ba ziyaar ko bu baax macha allahu taala waaye nuyu suñu technicien fa tabarakallahu alxaaji sàmba si di ko ziyaar bu baax di ñaan yàlla yal na yàlla yokk teraangaam yokk xéewalam ci daraje nabil mustafa sallallahu alayhi wa sallam macha allah di nuyu mboolem téléspectateurs yi nga xam ne ñooy suivre seen télévision Safina TV macha allah di leen ziyaar di leen ñaanal jàmm di leen ñaanal xéewal di leen sutura yàlla nañ ko buur yàlla boole defal ci daraje sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi fa tabarakallahu سيدنا علي كرم الله وجهه دفا واخنا جلينا سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واخنا ما جيلي جبريل جبريل جيلي سي الله من ما نزلت كلمه اعظم من كلمه لا اله الا الله على وجه الارض بها قامت السماوات والارض والجبال والبر والبحر ألا وهي كلمة التقوى ألا وهي كلمة النجاة ألا وهي كلمة الإخلاص ألا وهي كلمة القرب ولو وضعت في كفة الميزان ووضع سبع سماوات والأراضين في كفة الأخرى لرجحت عليهن سيدنا علي نينا ما جيلي تي نجول مكة نجول مكة جيلي تي جبريل جبريل جيلي تي يالله mu ne amul baat bu gën a rëy baatu laa ilaha illallah ci kaw suuf ndax laa ilaha ci la yalla taxawale asaman jurum ñaar ci la yalla taxawale suuf jurum ñaar ci la yalla bindé garab yi ci la yalla bindé geej gi ci la yalla bindé lepp mune ne baat bi nga xamné soko dé wax da ngay sel moy baat bi nga xamné ne dé wax da ngay mucc moy baat bi nga xamné ne dé wax da ngay jup moy baat bi nga xamné ne dé wax da ngay jégé sa borom moy baat bi nga xamné ne dé wax da ngay am jamm waye moy baat bi nga xamné buñ ko tegoon ci balance jël asamaani juróom-ñaar ak suufu juróom-ñaar lu dis ñu teg leen ci benen balance la ilaha illallah gën leen a diis moo tax sayyiduna muhammad salaa sallam daal ne afdalu zikri kalimatu la ilaha illallah mboolem du li nit di zikkar la ci gën moy la ilaha illallah boo ne laa ilaha illallah nak faaw nga ne muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wasallam mbokki la yi laa ilaha illallah dafa am solo cheikh alxaaji abdul aziz si dabbaax def na ci ay ay abiyaat dafa wax ne zikrul ilaahi lil qulubi quutu nee na tudd yàlla mooy dundal xol illam taish bihi fa hiya mu ne xol bu dundul ci tudd yàlla rek dee na mu ne kon ahyu na ngeen dundal qulubakum seeni xol bi zikrillah ci tudd yàlla ah yaa ibadallah yéen jaam yàlla yi ahyu qulubakum bi zikrillah fii kulli waxtin yaa ibadallah Cheikh Alxaaja Abdu nee na jamono jum mën a doon na ngeen dundal seeni xol ci di tudd yàlla ndax xol li koy dundal mooy tudd yàlla ki ngi ni nga xamee ne yaram li koy dundal mooy lekk ak naan ak sangu waaye xol moom li koy dundal mooy tudd yàlla mu ne zikrul ilahi sullamun li raaqi li xadratil xayil azizil mu ne tudd yàlla mooy eseel bi nga xam ne ki bëgg a yéeg ba yegg ci boromam ci lay jaare kon soo bëggee yegg ci sa borom faw ngay tudd yàlla lu bari ndax loolu mooy sa iseel bi nga xam ne ci ngay jaar pour mën a yegg sa borom hmm? kon tudd yàlla mbokk yi lu ama am solo la nga dem ci rimaax wa fi rimaax fi fasl al xaamis wa salaasina fi aadabi dhikri boo demee ci rimaax ci buntu fanweer ak juróom fi muy jàngalee tegg ni zikar dafa wax ne aadabu dhikri isnaani wa ashruun xamsatun minha saabiqatun ala talaffuzi bi zikri mu ne tegginu zikkar ñaar fukk la ak ñaar waaye juróom yii avant ngay tàmbalee zikkar nga war a sàmmoonteeg juróomi teggin yi balaa ngaa sóobu ci wàllu zikkar parce que ñaar fukki teggin yi ak ñaar yii faaw nga sàmmoonte ak moom ngir meññent bi nga war a am ci biir zikkar bi nga mën koo am ndax bari na ko zikkar ay at mais zikkar bi amul jeexital ci moom zikkar bi feeñul ci moom doo ko xool ba ne kii de kat la am koo xam ne rek 6 mois wala 2 mois wala 3 mois lay zikkar boo xoolee jëbi rek gis leer gi leer xeeti xam nga lu ko waral bu fekkente ne da ngaa jóg di zikkar di jëm ci sa borom te xamuloo teg gi ni zikkar mën nga zikkar bay bëgg a dee te doo am dara. kon nag teggin yooyu di ñaar fukk ak ñaar day war na ci képp koo xam ne bëgg nga di zikkar képp koo xam ne bëgg ngaa sóobu ci yoonu zikkar nga fexe ba xam ñaar fukki teggin ak ñaar yooyu ngir soo zikkaree zikkar bi mën a am jeexital ci yow mooy nag juróomi teggin yi avant ngay sóobu ci zikkar bi la mu ne awaluha at tawbatu wa xaqiqatuha tarku ma la yaanihi qawlan wa fi'lan wa iraada mu ne nag bi njëkk ci teggin yi mooy da ngay tuub d'abord da ngay tuub ba noppi te kat boo demee ci laxdari yu nee na wa surutu tawbati an nadamu ala ma fata wa niyatun allaa yauda ila zambin fi ma baqiya min umrihi wa an yatruka al maasiyata fi saatiha in kaana mutalabisan biha sarti tuub mooy nga réccu lépp loo de doon loo doon def lu neexul yàlla nga bàyyi mooy yàlla ci sansi bu la fekkoon nga doon mooy yàlla ci saa si koy bàyyi ba pare nag rëccu am yéene bu sell ne insha allahu taala li des ci sama dund dootuma soobu ci mooy yàlla bu ko defee nag loolu mooy njëkk mooy tuub mooy tuub nag dëgg-dëgg tuub mooy nga bàyyi lépp loo xam ne amul la njariñ moo xam ci wax la moo xam ci jëf la moo xam ci namm-namm la waaye lépp loo xam ne yëg nga ne lii daal njariñ amu ci ne na ko bàyyi boo mooy bi njëkk mu ne wa saani an yakuna ala taharatin kamilatin min xadathin wa xubsin nga nekk ci laab gu mat sëkk laab gu amul benn wàññee ko laab ci yaram laab ci palaas bi ngay jullee laab ci yére laab ci sa xol bu ko defee nag nga door boo mooy ñaareelu teggiin yi ci bala nga soob ci zikar bi ñettel bu ne as-sukutu was sukun noppi ak dal waye di zikar ba yag am ku ñew di wax yow nga tey sa kurus waxtana mom ba sa xol sedd nga continuer koku baxut day tax leer yi nga war am ci zikar bi am benen bi as sukun moy dal ta boy bo toge ben place sa togin bobu nga tok bul ko changer daga para ci bi waaye di zikar di wëlbatiku balaa ngaa pare wëlbatiku nga fukk yon ak juróom tok façon toggin bu nek nga tok ko koku day tax leer yi nga wara am ci zikar bi doo ko am mune ñentel bi an yamist an yastamid bi qalbihi عند سروعه في الذكر همة شيخه ويستحضر ويلاحظه ليكون رفيقه ولو نادى شيخه بلسانه بالاستغاثة عند احتياج جازا moy ñentel bi moy mu teub ci xolam buy dugg ci sikkar bi mu teub ci xolam yittay serignam mu teewlu jëmmi sëriñam mel kuy gelmandiku serign bi melni serign bi dafa toogandoog mom mu di ko gis ngir serign bi nek andandoom ci dox gi mi dox jëm ci yalla waaw takat wa haza min ahammi al adab takat li dafa bok ci li ëpp importance ci teggin yi waaw bokk na ci teggin yi ëpp valeur ëpp importance nga war koo bàyyi xel te mooy booy tàmbale de zikkar nga teewlu sa jëmmi sëriñ bi nga xam ne moo la jox werd salaatal faatiha bi nga teewlu ko mu mel ni mu ngi toog ci sa kanam nga di ko gis di ko jeeñeer bu baax di ko yëg ci sa xol waaye di ko imaginer ba mel ni yaa ngi koy gis ngir mu mën laa gunge ci yoon wi ndax booy dox di jëm foo xamul da ngay and ak ka fa xam moy tax sa yoon gaaw mais so andul ak xam yoon wa lu la lu da ngay lambatu fu nek nga jaar fa man nga yag ci àll bi yegg waaw lolo tax ilayhi wasila yen ñi bëgg a jiim ci ci man yalla ut leen ku leen indi ku leen indi nak moy kan moy ki xam yoon wi ki gëna xam yoon wi ñepp moy rasulillahi am ñu ko jangal ba ñu xam yoon wa ñoo ñak ñu ngi fi ba tey ci japp ci guur yalla yoyu tabaarakallaahu mu woon la yoon wa waaye nag góor yàlla mat góor yàlla mu ne juróomeel ba an yara istimdaadahu min cheikhi huwa istimdaaduhu min annabiyi sallallahu alayhi wa sallam li annahu naaibahu nee na mu gis ne tëbb gi muy tëbb moom ci sëriñam dafa mel ni rek tëbb gi muy tëbb ci rasulillahi parce que sëriñam moo ko moo wutu sayyidina Muhammad ci moom taalibe bi rasulillahi leer yi mu la war a tëbb ci sa sëriñ la koy jaarale pour leero yi wana war a yegsi ci yow moo tax sa jëmmi sëriñ ngay teewlu bu ko defee mu man laa jottali anwaar yi anwaar yi mën a yegsi ci yow lu am am solo la juróom yi teggin nag moom ngay sàmm wante yow mi bëgg a zikkar balaa ngaa dugg ci wàllu zikkar soo matalee juróomi teggin yii ah nga door a war a mën a nag sóobu nag fa tabaarakallahu ci zikkar bi منو إثنا عشر منها في حالة الذكر منك أمنا فك النار يو خمنة جمانو جيجي ذكر جمانو جوجي لا فك تجينا النار يو دي أكمباني دي أندر يو بتجيك موي الجلوس على مكان طاهر متربعا أو كجلوسه في الصلاة مستقبل القبلة إن كان وحده وإن كان جماعة فيتحلقون wa farraqa ba'dul muta'arrikhina bainal mubtadi wal muntahi innal mubtadi yakunu ka julus ka julusihi fi salat wal muntahi yakun mutarabbi'an mune ne kemoi. Dengai tok da ngay toog ci place bu laab nga ferankulaayu wala nga toog toogaayu kuy julli waaye na jublu penku bu fekkee ne yow rek yaay zikkar da ngay toog ferankulaayu wala nga toog toogaayu kuy julli ni muy tooge te mooy lem sa tànk càmmooñ jël sa tànk ndeyjoor mu jaar ci sa kaw tànk càmmooñ nga samp sa baaraami tànk ndeyjoor bi ci suuf comme ni ñu ko jàngale ci julli nga toogee noonu jël sa benn loxo bi mu tegu sa benn pooj bi loxo càmmoñ bi ci des tegu ci beneen pooj bi ngay xëcc li ngay xëcc di zikkar léegi nak ñi nga hamne nak nag ñoo soobu ci yoon wi ba xam yoon wi def ci am ñu wax ne yow mi nga xam da ngay door door di zikkar nga toog toogaayal kuy julli mo gën ci yow nga ferankulaayu way nag bo demee ba yàgg ci zikkar bi nak ba yàgg ci booy toog nag mën ngaa ferankulaayu wa kon nag lool ñu bay ko xel kon yow mi door tambalé boy booy zikkar nga toog toogaayal kuy julli fa tabarakallah mom lañu gëna tamu boo demee ba yàgg ci nag mën nga nak. sarankulaay nag mhm. mu bi an yadaa raxatayhi ala faxisayhi na nga jël sa ñaari tenq loxo yi nga teg ko sa ñaari lupp yi sa ñaari pooj yi sa tenqal loxo nday joor na ko teg sa pooju sa tànk càmmoñ sa loxo sa sa sa sa loxo càmmoñ laa bëgg wax ko ci sa sa tenqal loxo ndeyjoor nga teg ko ci sa pooju tànk ndeyjoor di zikkar nag di xëcc bu ko defee nag tabarakallahu mu ne naga ba nag na nga parfum na nga parfum bërëb bi na nga parfum bërëb bi ngay toog di zikar nang ko parfum nang fatal curai guneh, cuuraay gu neex mu xeeñ na nga parfum sa yaram boo amee socc na nga socc ba mu set ba am xet gu neex Wow, bu ko defee nag kat gu salte gu fa nekk gu xeeñ nga sori ko tax kat bërëb yi ñuy toog di zikkar malaayika yi dañ fay teew ak jinne yi nga xam ne ay julit lañu dañuy fay teew raw ruuxaani yuun te mooy rawxaani dañuy fay teew te ñoom laa yaqbaluuna rawaixul karahiya ñoom bëgguñu xet gu bon waaw bëgguñu xet gu bon malaayika yi ak jinne yi gëm yàlla xaw ma jinne yi gëmul yàlla nag ñoom moom xetu xasaw lañ bëgg mais jinne yi gëm yalla la wax ak rawhani bëggu ñu xet gu xasaw motax fi ngay tok di zikkar da nga fay taal cuuraay bu neex piis fa parfum parfum sa yaram parfum sa yéré parfum sax sa kurus bu ko défé nak ah boy zikkar nak ñooñ ñoy ñew di taataan lèr yi diko indi ñolay ñolay nyot di leri, leri yi lèr yi di mën di ñew bu baax bu ko defee nga nga nga nga nga gën a mën a euh, gaaw a yegg ci yàlla sa xol gën a mën a gën a gaaw ci duy ci leer moo tax mu ne fa bin qitaahim an majlisi zikri yaqtaul madat waaw bu fekkentee nag place bi nga nekk xet dafa am xet gu xasaw yow laaloo parfum defoo dara toog noonu rek fi ngay zikkaree daal am xet gu naqari ñoom dañuy daw dem seen yoon te dem gi ñuy dem seen yoon bañ teew ci fi ngay zikkaree mooy tax mëdët yi daal di dagg leer yooyu doon sottee ko sa kaw day jékki-jékki arrêté dootoo gis dara moo tax ngay zikkara zikkara zikkar bay bëgg a dee doo gis dara fekk yaa jaaru ci yoon wa mu ne arraabi ñeenteel ba lubsul libaasi tayyib xallan wa raihatan waaw nga sol yére bu set yére bu laab waaw ba pare na am xet gu neex waaw parfum ko waaw cuuraay ko jël yére bi taal cuuraay ci ànd bi tiimale ko ko saxaar si dugg ci yére bi ba mu ba mu xet gi neex bu baax a baax a baax mbokk yi loolu dafa am solo kuy dem ci yàlla na dafa dafa war am noo mel inna allaha nazifun yuhibbu nazafa yàlla daa set bëgg set moom yàlla kon nag boo fay dem nag booy dem ci boo waree am ak yàlla audience mais da ko war a préparer nag mel ni la neex waaye am ak yàlla audience mel ni kenn xamul waaw te zikkar ba bëgg dee doo gis dara rek mu ne juróomeel bi an yakuna al makaan muzlim waaw an law kaana hunaka sirajan atfa'uuhu wa in kaanuu fi xaasati anfusihim wa hada in amkana al makaan al ne juróomeel bi mooy fi ngay zikkaree dafay lëndëm na lëndëm bu fa làmp nekkee ko fay ndax leer du feeñ ci biir leer waaw na nga ko fay mu lëndëm këris boo ko defee leer gi buy ñëw day am doole te day mën a jàll bu baax a baax a baax foncé ba yegg ci xol bi te xol bi moom bu xesee alimenté leer ba fees moom mooy moom moom mooy branché cër yi sa xol bu fekkente ne leer a ca fees dell su branché cër yi cër yëpp lu baax rek la def duñ def safaan moo tax lu mat a bàyyi xel la mu ne as saadis جرم بن ba تغميد العينين لأنه أسرع في تنوير القلب فتغميد عينيه ينسد عليه طرف الحواس الظاهرة وانسداد الحواس الظاهرة سبب لفتح حواس القلب من جروم بنل آه، بي تي موي بوي بوي ذكر داغي مل لوي خب خبال سي من مل لوي نلاو تن لاو من لوي خاوا گم توتي parce que li tax ñu tam ngay xaw mel luy gëm parce que bu fekkante ne nga xawme mel luy gëm do gis dara luddul jëm yalla ji ngay ngay tewlu te da nga bu de ngay tewlu sa serigne day yomb pour nga man ko imaginer mais so ne jak xulli sa bët rek sa bët lepp lu mu tege rek sa xel day nekk ca lolu te lolu sa xel di nekk moo lay empêcher ba doto meuna tewlu deug deug ni nga wara tewlu zikar bi motax da nga xam lu ki gëm waaw nga gëm nak da nga lu ki gëm-gëm la boy gëm bu law de bu nelawee nag kuréel gi day wadd dootoo xam foo tam yemate woon waaye ngay xaw a mel luy gëmm nii rek di ci bàyyi xel mu ne gëmm gi ngay gëmm sa bëti nag dafay ubbi sa xol bi pour xol bi mën a duy leer bu baax a baax a baax a baax a baax ñu bàyyi ko xel mu ne juróom-ñaareel bi an yami la xiyaala cheikhihi bayna aynayhi wa hada akidul adab nee na juróom-ñaareel bi nee na sa ñaari bët yi na mel ni daal bi nga koy xep-xepal gisoo kudul sa sëriñ te loolu dafa bokk ci gin yi gën a feddaliku ndax teewlu gi ngay teewlu sa sëriñ moo lay may doole mooy tax nga gën a gaaw a yegg ci sa borom ndax sëriñ bi boo branché woo ci moom moom day branché wu ci sëriñam sëriñam boobu branché wu ci sëriñam ba mu àgg ci rasulillahi mu branché ko ci jibril mu yegg ci yàlla directement lay doon silsila du am benn doggant waaye boo bàyyi si sëriñ rek bëgg a dem ci yonent bi doo àgg waaw bu ko defee na nga perdre lépp waaw kon nag teewlu sa jëmmi sëriñ rek moo gën a yomb waaw juróom ñetteel bi nag mooy as-sidq wa huwa al-istiwaa'u al-alaaniyati al-istiwaa'u wal istiwaa'u al-alaaniyati waaw mooy yemoo ci lu feeñ waaw booy mooy dëggu ci li ngay def ba pare nag yemoo ci hmm. waaw boy zikkar da ngay gëm li ngay zikkar waaye boo zikkar ni te gëmuloo ko it da ngay zikkar bay bëgg a am dara waaw lépp loo jàpp te gëmuloo ko doo ci am dara li nga di ko zikkar dang koy gem japp ne la ilaha illallah bi mate diko zikkar insha allah taala dina ma yegg ci yalla soko geme nak ci kaw ñepp xamne da gem nga ko nga dund ko bu baakha baakha baax koko nak mo lay dimbali nga gaaw yegg sa borom jurom ñentel mo ne al ikhlas wa huwa wa huwa tasfiyatul amal min kulli thubin wa ah, bi an bi annahu يفرغ قلبه عما سوى الله تعالى حتى لا يطلب دنيا ولا أخرى ولا ثوابا ولا ترقيا وإنما يذكر الله تعالى حبا في الله آه موكي اليوم بلد نينا جروم ينتل موي نغا سلل سذكر نغا سلل لغي بينكوي لغي تي لب لو خمنا اك جحس جحس لا مانا نغا فيخل سخول تي لب لدول يالله بول ذكر غير عم bul zikar ngir ambolo, bul berzikir ngir bul zikar ngir daraja, berzikir ngir waye nak bul berzikir ngir aduna berzikir ngir bul zikar ngir am bul zikar ngir yek waye zikkaral ngir ne da nga sop yalla ta yalla tax <laughs> mota yunus sallallahu alaihi wasallam neena nit bu zikar bu zikare di tuddi yalla di tuddi yalla ban noppi yéene ko jaamu yàlla bañ laaj yàlla dara nee na yàlla dana ko jox lu ëpp la mu jox ña nga xam ne dañoo laaj yàlla yow mi zikkar ba noppi ne yàlla yàlla nga may alal yàlla yàlla nga may ay oto yàlla yàlla nga may ay kër yàlla may ma ay njaboot yàlla may ma yàlla may ma yàlla may ma yàlla may ma lim lu bare bari yàlla may la lam la may lépp ci la nga ko ñaan mais yow mi ka ca des moom zikkar ba yeggal ne def jéene naa ko jaamoo ko yàlla yem ca loola yàlla jox ko lu mu joxul kenn kon tabaarakallaahu def te yàlla tax am na solo moo tax waykat ba ne uhibbuka laa lii bal li annaka ahluhu wa maa lii fii shay'in siwaaka mataamiu waykat ba dana yàlla man bëgg naa la de waaye dara taxul parce que yaa ko yel yaa ko yelloo yow yàlla yaa yelloo ñu bëgg la nag te kat aw ma kenn ku may xemmem ku dul yow yow yàlla waaw kooku nag dimension la koku mo bëgg na boromam mo ngay zikkar mo ngay tudd yalla waye tudd gi mi tudd yalla nak tudd ko ngir leneen xemeemul leneen mom yalla rek ko ñor dimension boobu yalla ci yalla yegge mena wa bis wal ikhlas yasilu zikri ila darajati sidiqin mune deggu gi ngay deggu ak selal gi ngay selal ci ngay yegge nak ci darajatu sidiqin ba ag ci ñinga xamne ñom lañ as siddiqin way nga xamne abou Bakr Siddiq fa la yegon na fa hmm lol mbok yi lu am solo la neena wa huwa nak wa hiya an yuzhira jamia ma yaxturu bi qalbihi من حسن وقبيح لشيخه وإن لم يظهره كان خائنا والله لا يحب الخائنين la بيغا خامني يا bi nga xam ne yaa jël ci nee na lépp lu toq ci sab xol moo xam lu rafet la moo xam lu ñaaw la na nga ko wax sëriñ bi bu ko ko nëbb de soo ko ko nëbbee rek workat nga te yàlla bëggul ñuy wor kon boo sooboo ci yoon wi di zikkar bis boo yéegee ne yow léegi dangaa ngaa sàggan bis boo yéegee ne yow léegi ni nga daan zikkare zikkare zikkare too ko léegi sa zikkar daa dellu gannaaw ah léegi da ngaa bëgg àdduna da ngaa commencé bëgg ay caaxaan ay foyang ci commencé dellu te loolu nekk bàyyi woon nga ko nekkatoo ca woon dellu ci serigne ko ah serigne de wax deug yalla man yëg naa dama delu gëna sama wàllu jamu yalla bu ko defé man la tégat ci yoon wi waye nak bo nopi walé lol sa boy dem ci serigne bi diiw ba lèr yor sukku gu rafet sol sa grand bu bu reuy ñoo tok serigne bi ah, tabarakallah di bi serigne bi yaa nax sa bop nax serigne bi to lol baxul ah kon na nit da ngay wax serigne bi fi nga tollu diko wax sa bop ndax man la tégat ci yoon wi bako ko ken duko fajj nina fukel bi moy an yaskura bi himmatin tammatin wa yamilu bi ra'sihi ila jihati al-yumna bila wa yarji'u bi ila ila jihati sadrihi wa bi illa allah ila jihati al-qalb wa hiya اليسار تحت الثدي ثديي أيسر ويختطفها من سرته إلى قلبه حتى تنزل الجلالة القلب فتحرق سائر الخواتر الرضيه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 nee sa xol bi dafay ubbeeku sa xawaasul xam say ubbeeku lumière bi du dugg fu nekk di jaar ci xol bi boo xol bi fees dell moo tax mu ne wa yamilu bi rasihi ila jihatil ayman billah al ayman mooy ndeyjoor billah ah jihati sadrihi mu delloo si nag ila ci ci wàllu dënnam hmm? wa bi illallah ila jihatil aysar illallah gën a yóbbu ko càmmooñ kon non lañ koy sikkaree li ma len di wax nak du samay wax cheikh haj omar al Futi yi wax ci rima ci faslul khamis wa salasun fi ada dhikr bo fa demé fekk fa du samay wax de te kiko wax nak moy cheikh al omar umar futi siraj malik nee na walu tariqa bi buñ ci werantee man mawdo la cheikh al omar umar futi wax lay jël kon koku xam ngeen nako du ko ndaw te sax Sénégal xam nañu loolu wal xaadi achar ixdaaru maana zikri bi qalbihi maa kulli marratin wa yusgi xaala zikri ila qalbihi mustaxdirun lil maana xatta ka anna qalbuhu huwa zakiru wa huwa yasmacuhu nee na fukkeel beeg benn bi ci aadaa bi ci teggin yi mooy mu teewal ci xolam ci saa buy jàng laa ilaha illallah wala muy jàng istixfaar wala muy jàng salaatul faatixi muy teewlu ci xolam di xerawlu di bàyyi xel maanaa baati li muy wax maanaam salaatul faatixi bi ngay jàng del bàyyi xel li muy firi yow mi ko mën a firi soo ko mënta firi nga bàyyi xel baati ni nga koy jàngee ba mel ni yow sa xol bi mooy jàng sa nopp yi dégg ne nag teewlu boobu ngay teewlu maanaa baati wala nga koy teewlu maanaa wax ci loolu dafa am fu mu la yóbbu fu sori ndax day tax mboolem xalaatu àdduna yeeg yooyu mën a génn ci sa xol waaw ndax xel du jàpp ñaar nag su xel mi jàppee euh, li muy maanaa li muy firi rek wala mu jàpp maanaa baati rek dootu jàpp leneen mais soo ko libéré nag talu loolu lépp xel mi ci àdduna lay nekk di wër rek te boobaa dalay lay xañ lu bari. mu ne wasaani achar fukkeel beeg ñaar bi mooy nafyu kullu mawjudin min al qalbi si wallahi taala bi laa ilaha illa allah euh, li yumkina tathira laa ilaha bil qalbi wa yasri ila al a'dha neena fukkil bek ñaar bi moy mu dakk lepp lo xamne lepp lu dul yalla mu dakk ko ci xolam ba mu set ci wecc waye ci lan la koy dakk ci batu la ilaha illallah ngir nak la ilaha illallah gogu meuna jeexital ci xol bi meuna daw ba dugg ci mbollem ciir yi fukki teggi nak ñaar yi moy yi nga xamne mom ngay sam wantel ci jamono ji nga xamne yaangi sobu ci bir zikar bi hmm kon waxon na la avant ngay tàmbali zikar bi am na juróomi teggin yoo war a sàmmwante léegi ne bi nga sóobo ci zikar bi am nga fukki teggin ak ñaar yoo war a sàmmwante léegi kon am nga fukki teggin ak juróom ñaar léegi mu des ñaata mu des nag juróomi teggin mais nag wa xamsatun baadal firaax min azikri juróom yi nag yaa ngi sàmmwante ak ñoom ginnaaw ba nga zikkaree ba noppi innahu isa xatama sakata wa sakana wastahdara dhikra bi ijraihi ala qalbihi mutaraqiban wa aradda dhikra falaallahu yaruddu alayhi wa aradda fi lamhatin wa yaghmuru jawduhu fi lahdati ma la taghmuru almujahadati nee na ginnaaw ba nga zikkaree ba noppi nag nee na na nga dal noppi dal toog fi nga doon zikkaree bañ faa jóg dal ne teg ndax waaridaat yi leer yooyu doon wàcc mën a dugg ci xol bi ba placé wu ba toog ba jekk nga door a mën a jóg waaye boo paree rek ne ñokket dem fa nga toogoon di zikkar fa la leer yi tuuru ku lu ma ta bàyyi xel la mu ne ñaareel bi nag mooy muraqabatullahi taala xatta ka annahu bayna yadayhi nee na ñaareel bi ci teggini zikkar yi ginnaaw ba nga zikkaree ba noppi na nga observer sa boroom ba mel ni sa boroom mu ngi nii toog ci sa kanam zikar nga ba noppi nag toogal nag teg di jéeneer sa boroom di ko xalaat di imaginer yàlla ba mel ni yàllaa ngi toog ci sa kanam teewlu boobu ngay teewlu jëmmi yàlla ji jamono jooju anwaar yi ñu ngi dugg ci sa xol bu baax a baax a baax bu yàlla dindi woon kiiraay yi danga koy gis nii muy wàcc ni muy amee dool dugg sa xol waaye nag kiiraay yi nag comme nag amagul amaguloo kattanu mën a mën a xotti kiiraay yi ba yegg ah do meuna gisagul leer nak waaye bo sàmmanteeg li mam Cheikh Al Hadj Omar Al Fouti jangale bo ci saxé di nga dem ba traverser kira yooyu yeb ba lepp lu la doon wax nga ngay ko gis jeheran yombul nak ci jamono ñu toll. bi moy an yajma Hawasahu, haythu la tataharrak minhu saaratan ka halil hirrati inda istiyadil fa'ri ñettel bi ci teggini moy nga dajale mbollem khawasul khamsa yi wa mbollem sa ciri jurom yi beut yek nop yek bakkan bek lamin bek loxe yek tank yek lepp ne tek taxo ben place bu ci dara ben bu mu ci yow neel tek dal gina bi nga zikare ba nopi ba melni mus muus muy yoot ab janax namu nan tek xamne bu rek jinax bi daw ni mu nan tek melni benn xeer bu tegu rek ba jinax bi jege ko rek mu tëb rek dal ci kawam téye ko ne noonu ngay mel waaw boo ko melee rek di nga mën a jàpp jinax gi soo fi nekkee di bërt bërt gi nag jinax ga dem yoonam nga perte waaw kon nag boo bëggee leeri wàcc sa kaw da ngay dal bu ko defee leeri mën a wàcc kaw ñeenteel bu ne yazummu nafsahu miraran xatta yadurul waarid في جميع عوالمه لأنه أسرع للتنوير البصيرة وكسف الحجب وقطع الحواتر النفسية والشياطين لأنه إذا زم نفسه وعطل حواسه صار يشبه الميت والشيطان لا يقصد الميت nee na ñeenteel mooy mu ŋàññi boppam waa ŋàññil sa bopp xeebal sa bopp doyadal jàppal ne doo tus yaa xeebu ci kanamu yàlla nee na loolu xeeb nga xeeb sa bopp ak ñi ngay ŋàññee sa bopp jàpp ne tekk woo dara ci kanamu yàlla nee na ci la la waar daati di wëree nag wër la nag dugg ci sa mbooleem yaram bi fees fa dell nag mu ne la lool sax moo gën a gaaw ci leeral sa gis gu sa xol waaye moo gën a gaaw ci xotti kiiraay yi nga xam ne mooy dox sa diggante ak sa borom ba nga mën a yegg ci yàlla waaye moo gën a gaaw ci dégager mbooleem xalaatu ñaaw yi nga xam ne ci bakkan lay jóge wala seytaan di la ko jax-jaxal nee na moo ci gën a gaaw te it loolu mooy tax nga dem ba yow sa bopp da nga mel ni am néew ndax xeeb ngi xeeb sa bopp mel ni ku tekkiwul dara ci kanam yàlla doyee di da nga dem ba yow da nga mel ni ci kanam yàlla te seytaane bëggul néew ndax soxlawul néew seytaane ki mu soxla mooy kuy dund bu ko defee nag seytaane daf lay sori bu la seytaane soree nag tabaarakallaahu loo ñëw nga jot ndax nit lu mu xañ ci wàllu yàlla rek seytaane moo fay jaar pour xañ ko ko ndax moo ko koy mais bu amatul ci accès sori la bëgg soxlaatu la waaw lu ñëw nga mën ko jël nag kon nag juróomeel bi fa la ñuy daanalee mooy adamu shurbil maa'i athra zikri wala fi athnaihi wal waaridaatu wa shawq wa tahyiij wala nga ne wat wat tahayuj ila al mazkur wa shurbil ma'i yudfi'u tilka al hara nee na soo zikkaree ba noppi bul naan ndox jamono ji ngay zikkar it bul naan ndox ndax leer yeeg tajalliyaat yeeg waaridaat yeeg euh, euh, euh, ndox yi naan yëpp nee na yooyu ndox leer yi nee na yooyu yëpp ndox mi daf koy fay ndax ay tàngoor la tangor wowo nak mom mo la jox leer bo ndox nak da koy fay bu ko fay leer day dal di couper tu ñew waaw ndax ndax ni mi tangé mel li safara bo ci soté ndox rek mo mu fay jeexna mais nak li gëna neew ci dir bin la may nga tok ko bañ ko nan ndox moy nisfu saa te moy 30 minutes kon sa bo werde ba nopi war nga tok 30 minutes yo xamné do nan ndox pour leer yi mëna placer sa bir yaram bu baaxa baaxa baaxa baaxa bu ko defee nag fa tabaarakallaahu ñaar fukki teggin yeeg ñaar yaa ngi noonu maam Cheikh Al Hadj jàngale ko ci rimaax képp koo xam ne sàmmwante nga ak yii waat naa ko si yàlla ne boo sooboo ci yoonu zikkar ku dem nga dem ku demul nga dem waskuruhu yaskurka fardan aw la daa mala in laa tansa rabbaka fi sirrin wa ilaani alaaji Mansour nee na tuddal yàlla mu tudd la soo wetee de ko tudd boo nekkee ci mbooloo tudd ko tabaarakallaahu te yàlla ne ne boo wéetee tudd ma ma wéet tudd la boo nekkee ci mbooloo tudd ma man yàlla ma nekk ci mbooloo mu gën sa mbooloo tudd la kon gaañi nañuy tudd yàlla nañuy zikkar ndax zikkar dafa am solo ku dul zikkar yaa xobu garab yee am fu mu fekk yóbbaale la mais booy zikkar tabaarakallaahu seytaan du la mën dara booy zikkar sa jinne du la mën dara na yu bon yi nekk ci biir àdduna yëpp di loraate di lor doomu aadama yi saa booy zikkar duñ la yemee ndax fa tabaarakallaahu malaayika yi lay wër ak jinne yi lay wër rawhani lay wër ak ni la yàlla soppé ni la yalla di woto ni la yalla di sàmmee moy tax ñom duñ la ñamé waye bo dul zikkar nak ah lo dal yaw la man arada an dhikri fa inna lahu maashatan danka wa yawm al-qiyamati ama yalla ne ko ma ku kudu ma dul tuddu ba ba ma fi ah sa at sa sa dund du neex de dama yawm al-qiyamé boy dekk da ngay maxa kon nak yalla ci yalla musal yalla ñu yalla defal dégg ak topp yàlla nañu yàlla ji bopam ñu diko tuddu Ah, te yàlla dimbali ñu ba teggi ñu mën koo sàmmwante ba lépp lu zikarkat yi am ci zikar ñu mën koo am yàlla ñu yàlla defal jàmm dafa ko mboolem julit wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu